léegi. waxtaan bi coronavirus duggun si na ci réewum Sénégal am nañu suñu cas bu njëkk spéculation yu bari na mais Binta euh, concrètement lan mooy coronavirus ak lan lay manifesté woo. waaw coronavirus nag euh, dañuy wax nekk jàngoro la boo xamante ne bii doomu jàngoro bi koy joxe moom la ñuy wax coronavirus. Euh, te doomu jàngoro boobu bu duggee ci doomu aadama bi mën na nekk ci moom bu fukki fan ak ñeent sax te du joxe benn màndarga ni mu ngi ci moom. Mhm. di wax ne que coronavirus jàngoro joo xamante ni bii tamit dafa am nu muy mandargawee ci ki nga xamante ni bii dugg na si moom ba nga commencé feeñal ay mandarga. lu mel ni ki sa yaram di tàng lu mel ni que bopp buy metti lu mel ni que nga mel ni sa boli da nga ciy yëg mettit ak it sa yaram bi yëpp mel ni dafa tëccu. yooyu bokk na ci boo ko boolee ak sëqat si ak tisooli bi muy loo nga xam ne ay màndarga yu ñu jàpp ne loolu mooy firndeel ci coronavirus waaye tamit jàngoro la joo xamante ni bii bala ñuy xam ndax moom la faaw ñu am lu ñu jël ci doomu aadama bi dem yóbbu ko ci laboratoire saytu ko kooka moo mën a dëggal moom laboratoire ni kii li ñu doon njort moom la dafa amee jàngoroy coronavirus donc ku ku ku gis signes yooyu da ngay dem euh, hôpital wala da ngay toog wootee ñu jël si la. waaw euh, système de santé bi nag waxul ne ki ko gis na ñëw ñun dañu bëgg moom mu toog yëglu ko. ñun ñooy jël sunu ay pexe dem jëli ji ko. ndax loolu dina tax mu wàññi ñi nga xamante ni bii dina jote ak ñoom gise ak moom si yoon bi dina wàññi muy tisooli ci seen ay. ma chers téléspectateurs très très ravi de vous retrouver comme ni ñu koy defee saay su waxtu wi jotee ci seen émission seen show ñu fas waxtaanee li gën a fës ci wàllub actualité et comme noo leen ko xamee en ce moment. Euh, na am ci yooyu ñeneen wàllu leen ci jàngoro jooju moo tax. Mm-hmm. ñun li ñu taamu moo di mu yëglu. ñu dem jëli ko. d'accord Ndeye Dimet. Khady ma lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñi seetaan ñëpp di nuy suñu invité yi alors euh, Binta yaa ngi koy expliquer léegi jàngoro ji ni muy manifesté woo démb autorités yi génn nañu. waxtaan nañu askan wi laata boobu gisee nañu ak njiitu réew mi ba ñu wax ni dégagé nañ ci benn somme bu toll ci un milliard quatre cent millions mais est-ce que yaakaar nga ne loolu doy na ngir xeex ak feebar bi. waaw xam nga liggéey bu nekk da ngay euh, am xam naa yeneen ministère tam noonu la ñuy doxee waaye rawatina ministère la santé l'action sociale dafa di liggéey boo ci gis rek da ngay xool ne man kat lii laa njortu ne su ma ko amee dina ma mën jàppale ci liggéey bi may liggéey bu ko defee njort boobu nga njortu ñu jàppale la ci génne ci xaalis bi waaye doo toog foofu rek korosé loxo booy liggéey ba ci digg bi da ngay xool ndax li nga jot a def ak li nga desee def ndax li nga yor ci sa gafak mën na koo matali loolu moo tax léeg-léeg dina am yenn yoo xam ne dina lay wallu ci biir yoon wi di la jàppalewaat ci biir liggéey bi mm-hmm. bu fekkente ne bii da ngay wax ci wàllu lu ñuy wax urgence sanitaire bi nga xamante ne bii man ci fànn boobu laay liggéey mhm. ndax maa ngi centre des opérations d'urgence sanitaire ñu koy wax COS ñu nekk ci biir hôpital de Fann mhm. ñun foofa dañuy liggéey ci liggéey bi ci ñetti anam yu am solo mooy balaa dara di xew balaa di dara di xew dañuy waajal suñu bopp ñu xool ci wàllu euh, yokk xam-xamu liggéeykat yi fan lañ ci toll ñu natt ko xool lan lañ ca war a dugal ñu xool ci wàllu jumtukaay yi ñuy liggéeyee ba ci fi nga xamante ne bi la nattee jàngoro yi xool tamit mbirum Euh, saytu bi ak bàyyi xel bi xam nga liggéeyu kër docteur dafa am ay jumtukaay yu bari yoo xamante ne bi ñu ngi koy yore mu commencé fi gën a kawe ba fi gën a suufee loolu la ñuy woowee ñun surveillance nga xam ne ay gët la yoo xamante ne bii moom la ñuy xool ci biir askan wi di ko xool ci ñiy ñëw ci ñun ak ñi nga xam ne ñun ñooy dem ci ñoom pour mën a teel a fàggandiku lépp loo xamante ne bii jàngorul bu na dugg loolu wax surveillance épidémiologique te euh, direction de la prévention di ko def ci anam bu rafet ànd ko ak région yi ak district sanitaire d'accord ci wàllu bi nga féete mais tey nga teewal fi ministère de la santé alors xaalis ne nii wax euh, joxe na ay instruction lu ngeen soxla ci wàllu woowu ñu jox leen ko mais tey xaalis bi bëggoon naa comprendre euh, urgence lay doon téléphone wala si wàllu prise en charge communication wala nan lay demee xaalis boobu. waaw foofu laa doon ñëw ci fépp lay dugg day dugg ci lu ñu ci laboratoire te yoruñu ko woon daf ciy dugg day dugg ci li nga xamante ni moom moo di saytu daf ciy dugg day dugg ci jàppale li nga xam ne moom la nekk di doxal fi mu toll nii ci biir frontières yi moo xam aéroport la moo xam ci buntu yi nga xam ne ñu ngi koy duggee ci réew bi ñu koy wax frontière terrestre moo xam ci yoonu gaal yi la loolu tamit dañ ciy liggéey kon dina dugg tamit ci fànn boobu dina dugg ci lu bëree bëri ndax loolu moo ëpp lu muy jël ci xaalis mooy euh, xabaar yi ñuy jox askan wi dina dugg ci foofu ndax tamit dooroon nañ ko balaa tey jii ndax yéen ñëpp gis ngeen ne produit yi nga xamante ni bii service national éducation information pour la santé génne woon na ko ci euh, tegtalu ministre de la santé l'action sociale maanaam ñu war gaaw wax nit ñi ne jàngoro ji lu mu doon naka lay wàllante ak surtout li ci am solo ba am ci solo mooy fegu gi naka la ci doomu aadama yi di muccee kon xaalis bi tamit dina bokk ci mu dugg ci yooyu ñu fexe ba xabaar boobu nag mu gën a euh, law gën a àgg fi nga xamante ne bi jot nga fa woon àgg tey te foo xamante ne bi fu mu war a àgg fu mu war a àgg lu teel a teel la loolu tamit bokk na ci foo xamante ne bi dinañ ko dugal xaalis bi mm-hmm. waaye xam nga ni bu fekkente ni bi jàngoro ji ñëw na ñi nga xamante ne bii dañoo gis ci ñoom jàngoro ji dafa am fu ñu leen war a tënk muy benn centre de traitement centre de traitement boobu dafa am ay lu mu laaj ci wàllu kooku noonu nga teg foofu doo ko teg di ko xool di nga ko dundal di nga ko lekk di nga ko naan mais tamit di ko yebal ñoo xamante ne bi ñoom ñooy dalal xelam dina soxla jokkoo ak ay waa këram ak ay mbokkam ngir dalal seen xel waaye dalal xelam poste parce que boo génnee sa kër wala nga génn sa njaboot ku ci nekk day bëgg xam ci lan nga nekk waaye yow mi ci sa bopp da bëgg xam ñooñu ci la ñu nekk te bu boobaa du moom du mën a dem ñooñu duñu mën a ñëw li nga xamante ni bi moo koy may mu jokkoo ak ñooñu tamit ci biir liggéey bi la bokk te duñ ko bàyyi ginnaaw. Mhm, d'accord alors Mballo Dia Thiam yéen bokkoon ngeen ci ñi alerté donc euh, euh, le fait Sénégal feebar bi ñëw fi lool du leen bett mais euh, yàgg nañ ñu wax depuis le début que ca AIDB def nañu fa dispositif boo xam ne dinañu mën a aar teewul ay AIDB boobu fa la fa la bi jaar ne na fii Sénégal ay bés yu yàgg est-ce que défaillance amu ci un peu. waaw maa bon di wax euh, sama madame bi macha allah tukulóor bi dégg wolof la <laughs> Binta bon li am solo mooy euh, wax nga dëgg ñu alerte nañu. Mhm. parce que aussi loolu mooy suñu rôle. rôle alerte te alerte bu mujj bi mooy suñu communiquer bi ñu def le 13 décembre. di wax ni euh, Chine ma ngay jaaxal nit ñi ñu ngi solidarité te barke suñu solidarité ak le peuple chinois ensuite nag di nangu aussi maanaam dispositif. dispositions yi xam ne gouvernement Sénégal bi ngi koy commencé di jël si surveillance su yi wante nag teewul tamit ci suñu alerte nee nañu frontières yi dañoo bari ak réew yi te frontières yi li ñu nekk maanaam ay passoire loolu laa ko mën a waxee parce que dañoo nekk ay frontières yu poreuses. fu mel ni tame nañ ko waxante dëgg. Euh, moo tax aussi système bi lu mu dëgër dëgër dëgër dafa am ay limites ci résilience am dafa am ay limites. Mmh. parce que aussi euh, li naan risque zéro amul bu doon loolu la kon Amérique ak ñeneen duñu am. mais ñun nag aussi ñoom ñooñu ñu ëpp pexe ëpp ñu moyen. Euh, ba tax na aussi loolu bett ñu que fait mu am cas bon moo taxoon d' accord nañu aussi ñu bañ a importer ay cas. Mhm. et d' ñu importé ay cas yëpp te ñu ñoo gën a ñoo gën a nekk situation mhm. Sénégal. ñu mhm. ci ëpp coono. mais donc le fait que aussi mu ñëw wàcc Air Sénégal comme ni ko waxee dem ba feneen. ba ñu doon ko gis loolu tamit quelque part euh, soit machines yi ñoo doxul. wala am na lu nga xam ne xel ni doxul ci affaire bi. loolu moom aussi nañu am am am maanaam. il faut que parce que am na même ñuy wax ni que fële aéroport euh, température nit bi la ñuy jël loolu kese est-ce que doy na. voilà loolu la loolu lay wax nii. Mm-hmm. parce que parce que li ñu naan screener maanaam képp ku ñëw am na ay machines yoo xam ne ñooy natt sa tàngooru yaram. maintenant feebar bi nag am na moment boo xam ni sa yaram dina tàng xëy na am na moo xam ni sa yaram tàngul. Mhm. bu boobaa aussi mun nga romb machine bi parce que machine dong la mun a am une défaillance. à euh, tel xëy na kooku romb na foofu ñu screené ko parce que ñu jóge ci vol yëpp dañ leen di screené. Mhm. kooku température bi wàccoon na xëy na peut-être àggul ci yenn yi. ba mu demee nag ba nemeeku ci yaram am na yoo xam ni waru ci nekk si la yëglu ñu doon a nemmeeku ni am na feebar boobu. Mhm. du loolu moo ci am solo li ci am solo mooy moom ñan la nekkaloon ak ñu bokkaloon ci vol bi fa la ñu nekk. dégg naa ñu naan bon ñu ngi jéem a xool ak Air Sénégal nan la ñu remonté filière bi mais wante li ci am solo ñoom déjà dem nañu te koo xam ni dem na mën nga am feebar bi comme ni ko Binta waxee léegi mën nga am doomu feebar bi te doo présenté symptômes yi te fa nga toll aussi mën nga wàlle. donc mën nga wàlle te amuloo symptôme bi. Mhm. ñooñu nag anañu. Mhm. donc loolu question bu mag la te il faut que gouvernement bi tontu ci. Mhm. ñu jéem a retracer leen. pour fa ñu nekk ñu fekk leen foofu bu fekkee ñoom ñu déclarer seen bopp parce que ba ñu déggee xabaar bi. ku ci nekk waroon na ni ah man de bokk naa ci vol maa ngi bërëb sàngam loolu moo ko doon yombal. mais waruñu toog ba ñu leen di rëbb. di leen wu di leen di traqué comme ay ñëw xam ne dañoo def leneen. Mhm. loolu baaxul parce que loolu problème de sécurité la. Mhm. sécurité réew mi. parce que fa ñu nekk on ne sait jamais mën nañu wàll seen i njaboot. Mhm. wala seen i am di jàmm. fa la ñuy dem parce que tooguñu aussi xëy ñu ngi dem ak dikk. te day tax feebar bi ni mu mel Chine wala feneen. mën na ko fi mel kooku lañ koy wax parce que la ñuy alerte. nekk ñu fi di jéem a gëmm ay réalités yoo xam ne ni ay évidence scientifique la. science moo démontré loolu. que mën nga am doomu feebar bi te manifeste sa yaram te moment boobu mën nga walla ku nekk. alors tey bu ñu déggee autorités yi dalal nañu xel yi euh, nee nañ ne ñëpp dal parce que cas bi jugeewul juddoowul fii dañ ko importé mais tey problème bi question yi ni ngi laaj mooy bu dee cas bu ñu importé mën nañ ko jël en charge mais est-ce que euh, loolu dal na xel. ci bu ñu gisee euh, situation bi nga xamante ne nii santé daf koy dund mu nekk jafe-jafe yoo xamante ni yéen syndicalistes yi ak askan wi dañ koy yegg seen yaram. waaw loolu li nga wax dëgg la moo tax moo ñu posé question bi foofu que ni ñoom comme que kooku rëcc na ña nekkoon ci vol bi yëpp war nañ leen seet fu ñu nekk parce que loolu day mun a indi njàqare euh, li tax muy indi njàqare comme que nee nañu personnel de santé bi ñoom ñoo nekk par exemple wax na ni frontières yi parce que ñoom euh, li ñuy njëkk a njort mooy feebar bi Chine la nekk képp ku jógul Chine Chine dem ci beneen dëkk ñëw fii donc doo war a mën a indi feebar bi Sénégal ba tax na li ci ëppoon solo mooy frontière wu port ak frontière wu aéroport yi yaa ngi mais foofu rek nekkul frontière xam nga ñeneen ñi ñu ngi ci yeneen dëkk yi yu nga xam ni am nañu frontière ak Sénégal mën nañu xam parce que par exemple ñun suñu système bi ni mu xarañee xëy na ñoom manqué nañ ko. parce que dëkk bu ma dëkk yi. bu ma ñëwaatee ci sama laaj moo tax ma delloo la ci laaj boobu noonu. est-ce que tey euh, conditions yi ñuy dund ci système de santé bi est-ce que jàpp nga ni tey ji ñaanuñu ko yàlla bu ñu amoon lu ëpp li est-ce que dinañ ko mën a saafara. non parce que Chine ci boppam muy ëpp ay pexe dem na ba jaaxle France fu mu nekk nii kaa yi am jaaxal na ko feebar bi moom moom musiba bu rëy la euh, mënuma wax de manière catégorique que ñun système bi ci boppam ña dem dootuñu feebar. wala du ñu mën a wàññi feebar ñu ko wax. Mhm. mais li am solo mooy obligation ministère de la santé mooy ñi nga xam ne nekkoon nañ ci vol bi ñu xam fu ñu nekk parce que ñoom aussi nekk nañu ay contact à risque. loolu lu am solo lu wér la. Mhm. léegi nag ma ma ñëw aussi si personnel bi comme que ñoom frontière ñoom ngay taseel bu ñu feebaree bi ñu te wax na ko ñoom ñoo leen toppatoo. nekk seen diggante ñoom ak seeni i waa kër xam nga ñoom aussi dañoo dañ leen exposé. Mhm. donc war nañ am formation war nañ leen donc euh, disons protégé. mais ñi nga xam ne xool yi dem nañu aussi xëy na suba ñu ngi teer si ci benn hôpital. wala benn centre de santé. bu nga xam ne ñooñu aussi tàggatuñu leen tàggat bi nga xam ni moo war parce que nee nañu ñu ngi formé c'est vrai am na ñu ñu formé mais toujours formation dafa am ñoo xam ne dañu nekk en première ligne comme au front am ñi nekk mooy li anglais di wax front line. ñeneen ñi ñi nekk back line ci ci ci yeneen yeneen lignes yi. maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci frontière bi jéem a seet feebar bi pour mu bañ a dugg bokk la ñi nga xam ne ñooy feebar faj feebar ba mu ñëw. ñi war a faj feebar bi ñun foog nañu ñi nekk ci hôpitaux yëpp surtout les hôpitaux yi nekk ci frontières yi. ay Kolda par exemple frontière am am na ak Gambie ak yeneen réew ay Guinée yu mel noonu. Tamba moom am na frontière ak juróomi réew. donc euh, léegi aussi Ziguinchor aussi am na Bissau Gambie aussi sorewu fa. donc hôpitaux yi nekk foofu ñun yaakaar nañu ni aussi. Euh, ci fegu loolu lu mel noonu ñooy aussi war nañ leen jox équipements yi war. ak équipement de protection tàggal leen aussi ci gàtt jàngoro ju ni muy ñëwee ak nañ lañ koy jëlee en charge. loolu dana mën a wàññi aussi.